ñaan la si képp koo xam ne da nga bëgg wéttal la moo xam jigéen du bëgg jëkkër la wala góor gu bëgg soxna dañu yàgg di koy waxe nag nuy ñaan góor ñëpp am soxna tabarak la te bañ am jabar ndax dinaa di wax ni lu wuute la fa tabarakala ni e, ñaan góor ñëpp it fa tabarak jigéen ñëpp it am sëriñ fa tabarakala te mu ànd ak barke te yàlla def si njaboot yu bari te ndax nañu yàgg di koy wax rek ne xéewalu àddina la sa gën bokk na sama njaboot ndax defe naa lu nit mën di am rek war na ñaan ndono te si sëy rek la nit mën a amee ndono fa la kon lii yoon la boo xam ne képp koo xam ne danga bëgg yàlla e, bette la xewal yàlla may la borom kër boo xam ne saalix lay doon wala yàlla may la soxna soo xam ne saalixaat lay doon yoon la boo xam ne soo ko dee def si kattanu yàlla suñu borom dana la si defal bunt tàmbali benn bi yoonu askar la te mooy suratul xadr ina salnahu fii laylatul xadr képp koo xam ne mën nga koy def guddi dimanche guddi altine bu nekk nga def ko quatre cent quarante quatre ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent bala ngay commencé nga def sa nawafil moo xam loo si jàng rek nga def sa xas du mooy nga yéene yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma wéttal may ma jëkkër ju baax wala yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma soxna su baax nga commencé def istixfaar julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nga def ñeent julli si yonent bi ñaan sa soxla def 40 julli si yonent bi ñaan sa soxla doora doog a def 400 yi lii fa tabarakalaay yoon la boo xam ne képp ku si def tawassul suñu borom dana la si may lu kawe sa si kàttum yàlla mooy inaan sa naw fi xadr dimanche moom nga ko def quatre cent quarante quatre fois fa tabarakala ba tey rabbi la tasirni fardan wanta xayrul warisin loolu yi yoon la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy sikkar jël benn waxtu boo xam ne waxtu booy respecté lay doon saa yu ak seere nga def ko si kattanu yàlla incha allah suñu borom dana la may wéttal mooy dina la may soxna wala dina la may jëkkër fa tabarakala su limu cinquante cinq nga koy def wala nga jéem a xam sa chiffre maanaam sa tur ban lim lay tollool nga di koy def si kàttanu yàlla suñu borom dana la jàppandalal nga am wéttal tey soo amee soxna wala jëkkër fa tabarakalla nga am si ndono dina yomb si kàttanu yàlla rabbi laata tasarni fardan wa anta xayrul warisina fa tabarakalla loolu it beneen yoon la ba tey it képp koo xam ne def nga yaada bi may wax si ismullahi latif mooy nga ut juróom benn fukk ak juróom benn si ay guro muy 66 kola 33 yi ruus lay doon 33 yi bana lay doon da ngay ut ndox fa tabarakalaa nga wéet gannaaw ba nga defee sa nawafil ba pare nga def sa istighfar julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn guro bu nekk da nga si jàng ismullahi latif 66 fois ya latif ya latif ba mi 66 nga def si ndox ba jël beneen guro jàng si 66 ismullahi latif def si ndox bi bu 66 yi yépp motee fa tabarakala nga jàng allahu latifun bi xibaadihi yarsuqu man yasha wax huwa qawiyun asis nga jàng ko 129 fois fa la ndox boobu da nga koy jël nga sangoo ko benn yoon bu la sax bala nga koy sangoo nga génne guro yi génne guro yi ba pare nga jël ndox ba sangu fa tabarakala guro ya nga génne ko def ko sadaqa si kattanu borom bi incha allah bala nuy lim 66 suur si kattanu yàlla dinañ la séddaleel goro si barke ismullahi latif fa tabarakalaa li kon yoon lay yoon la yu xam ne dafa bari ñu ma doon wax nan partage lenn si ñi nga xam ne dañoo bëgg wéttal kon nu jox leen si ñetti yoon yooyu bu àndeek dogalu yàlla incha allah dinañu ak yeneen yoon yoo xam ne kiy bëgg wéttal wala ki nga xam ne mu ngi sëy te njaboot si kàttanu yàlla suñu ko defee incha allah suñu borom dana leen si defal bunt lu si jub yàlla la lu si safaanu nu ngi koy jéggalu seen mbokk la alxaaji Modou Cissé bu Wadduha point org wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah